ci weer rajo bu tedd bi ñu nekk bokk ci weer yàlla wormaal di leen saare bu baax eh, fas yéene yëkkati ay kàddu nag ci ndigalul kilifa yi jëmee ko ci xew-xew yi ñu toll muy wéradi ji am ci àdduna ba agsi fii ci suñu réew doon xeeti wobaa xeeti jàngoro joo xam ne dafa law ba tasaaroo muy loo xam ne nag saa bu amee nit ñi war nañoo laaj lu ko waral war nañoo laaj it lu muy jëriñ xam nañ ne àdduna moom genn kilifa la am muy sunu boroom subhaanahu wa taala lépp lu fi am rek yàlla yàlla la neex mu am nit mën naa sabablu mën naa bëgg waaye sottal yàlla rek koy def kon yii di xew yu ne nañ jàpp ne ci suñu borom la bàyyi ko waaye nag war nañu laaj suñu bopp luy sabab si ginnaaw subhaanahu wa taala nee na yàlla du soppi li ne ci aw nit lu dul ne ñoo soppi la ci ñoom du soppi lu ne ci aw nit lu dul na ñoo soppi la ci ñoom loolu euh, alxuraanu karim la kon day mel ne bu nekkee ci jàmm dara xewut ba mu yàgg jàmm jooju jékki-jékki am lu ñëw gàllankoor ko kon war nañu laaj suñu bopp lu war a loolu war nañu laaj suñu bopp lu war loolu loolu nag day mën a dellu ci euh, bu ñu delloo ci wax yonent bi alayhi salaam danañ gis lu koy firndeel alxuraan karim mi ngi suñu borom nee na ak yàqu ak ñàkk a feeñ na ci suuf si feeñ ci jéeri ak ci géej gi ndax li nit ñi fàggu kon yàllaa ko def ngir bëgg leen a mosal seen meññetum jëf ndax ñu mën a dellusiwaat ci moom mën leen yërëm wax na feneen ni lépp lu leen dot dal ci musiba yéen ko fàggu lu leen dal ci musiba yéen a ko fàggu kon nañ jàpp ne wéradi yu mel ni tasaaroo bu amee yàlla waaye jaami yàlla yi ñoo ko sabab sabab si nag day doon dellu ci ñaar rek ñaar yoo xam ne lenn lañ mooy bàyyi ak bàyyi ndigal ak def ak tere lu ci nekk mooy la buñ la teree te bàyyi woo mooy nga buñ la digalee te defoo te mën a def mooy nga kon day mel ne li mag ñi daan wax ne bàkkaar yi ñoo jur bekkoor yi loolu mooy ne ci yu mel nii moo tax jullit bu ne lu mel ni bu amee lam war a njëkk def xelam mooy na tàmbalee ci boppam man lu ma doon ci musiba mi lan laa bàyyi te waruma ko a bàyyi lan laa def te waruma ko a def boo ko defee sa morom def ko ngeen del loola lool laaj ci tuub ak jéggulu yàlla su ko defee borom bi mën naa wàcc war yërmandeem jëlee fi lor ja kon nañ jàpp ne sabab si daal nit ñee moom moo xam yëg nañ ko moo xam yëguñ ko ñoo ko tey teyuñ ko sabab si nit ñee yàllaa ko def nag Eh, yu mel ni daana xew mas naa xew sunu yaay Aïcha radiallahu anha laaj ko yontu islaam mu ne ko mbugal la mu yàlla di nam ma mbugale ñenn daan ne ko waaye nag bu wàccee ci jullit mu ne ci la mu war a ne muñ delloo lépp ci yàlla yërmaan lay doon ci moom ndax bu faatoo yoolub ku faatu ci xare lay am ku faatu ci xare ci li lislaam mooy koo xam ne dañ koy teggil bàkkaaram yépp nga xam day mel ne kon saa bu dalee jullit buy góorgóorlu ci na la ko waroon yërmande la joo xam ne yàlla da cay jaare yërëm ko dootu ko topp dara bu dem yéefar nag mbugal la bu dem mooykat it mbugal la moo xam ne bu dem jullit mbu dañ koy mbugal fii ci àdduna moom itam ngir bu ëllëgee mu mën a mucc kenn ko topp dara kon daal lu mën a xew moom yërmande la ci ab moo xam jullit bi tegu ci yoon moo xam jullit bu dëng bi bu dem yéefar nag mbugal la fii ci àdduna Eh, di nara a dolliku ak mbugal ma ci dolliku ba liggéey yàlla na ci yàlla busal kon loolu it nit ñi war nañ ko xam bi ci des loolu ku gis àdduna li ci xew da gis firnde ji mooy dina xeeti ñaawteef ak xeeti mbon mbon ak xeeti tere yi nit ñi xët luñ daan tudd ay bakkaar yu mag a mag nga xam ne ci bakkaar yi gën a réy la bokk léegi nit ñi dañ ko woyofal lool ba jéggi dayoo am sax ci àdduna ay ñoo xam dañoo jóg di aar yooyu di defaanar yooyu ci jamono ju mel noonu war nañu mën a séenu nattu bu ne wàcc suñ kaw tooñante bi noggutoonte bi ëpp leen ëpp leen doole yi moom sa morom mm, képp su morom doole wan ko ko mm, tere yàlla yi ñuy xëtt guddeeg bëccëg di ko njéeméerlu boole ci nañ jàpp ne yii yooyu ko sa yooyu rek ko sa waaye yàlla nag ku bari yërmande la ku ñeewante ay jaamam la mënoon na leen a seetaan ñuy def bàkkaar di def ñaaw téef na ci jàmm bu yomal xamee day tax mbir yi gën a metti waaye li mu wax ne zahara alfasaadu fi lbarri walbahri bima kasabat aydi nnaas li yudiqahum baad alladi amilu laallahum yarjiun muy daa bëgg nit ñi màmm gi dakk ñu dellu siwaat ndax fan yi ñëpp maasa na dellu seen borom da nga yëg ne kenn ku ne fu mu toll ma xalaat naan lii moom loo xam ne nii tubaab yi wax ak seen xarala ak seen pexe yu rëy yëpp maanaam ñoom ñëpp gag nañ tey maanaam ni muy tasaaroo ni mu gaawee ni mu jéggee dayoo jaaxal na ñëpp ak moyens yi ñu am yëpp ànd ak loolu bis bu yàlla sax ñu dégg ci njaaxum ñu xamul lu mu doon te day mel ne bu fekkee ñi ngi tuumaal ñenn ñoo kare it ak lu mën a xew moom kenn mënatut a mënatu koo téye fi ñi kon mel na ne ëpp na loxo daal loolu nag day delloo ci nga ñaan sa borom dellu ci yàlla dellu ci yàlla googu nag bokk na ci li muy jëriñ ab jaam bi jëriñ si nañ xam ne yu mel nii yonent bi salaam waxoon na ne ci mandarga yi bis penc la bis penc am ay mandarga yu mag ak mandarga yu ndaw nee na buñ demee ba ak ndeete bari mel ne jur guy dee jekki-jekki deeyandoo lu bari fu ngeen gis loolu xam le ne ci mandarga bis ci la bokk te xeeti wéradi yu mel nii di ay choléra yu mel nii di xew nga xam ne mbooloo ci xëy faatoondoo ci buntu boobu li kon mën na jàpp ne yàllaa ko jublu waaye nit ñee ko sabab loolu it yu mel nii su amee nañuy xam loolu ba bañ di ko fàtte dañoo baaxoo ñaare bu dara xewee rek nit ki moom du xalaat mukk ne doon na ci dara te fekk yow boo demee yaa ngi ci biir ñi ko so ñi ko def boo tuubee sa morom tuub rek yàlla la ñëw maa yërmandeem moo tax tolluwaay ci yi ci jiitu war ab jullit mooy na nay tuub dellu ci boromam di góorgóorlu ci topp yàlla lu mu sàggane woon te wur ko sàggane mu fonk ko di euh, baalonte ak ndax tooñ yëpp moo moo moo tar waaye rawatina tooñ sa moromu nit te xam nañ ne tooñante gi wuñeente awra gi waxante lu ñaaw li loolu tas na ba jéggi dayoo ni ko ñenn ñi waxee ne. ñaawteef yi tasaaroo fii benn bu ci nekk rek yàlla mbugal na aw xeet ngir benn ci yooyee yooyu yëpp nag fi ne daa daju kon kon buñ lu ne mu ne war nañ ko mën a séenu kon buñ delluwul ginnaaw kon lu ñu war ci yàlla dañoo yërëm bëgg moo tax mu ñuy fàttali boppam li kilifa yi daan waxee ne ku yàlla fàttaliku nga xam ne fàttaliku na la ku ko fàttal daa mel ne da koo jublu bàyyi la ngay dem waaye ñu jàng ci lañ ne li ñuy wax ne yàlla Euh, laa yuhmilu yumhil wala yuhmil lañ koy waxee maa mel na ne mën naa mel ne ku ku bàyyee ndi ni kii nii waaye nag ñàkk ci soxla amut bay bayal lay def waaye du bàyyi ok noonu lañ yàlla day bay bay waaye du bàyyi mën naa la bay bayal na ngay def di mooy mu mel ne amut yow soxla yow nga jàpp ne kenn di la mënul dara waaye bis bu la jàppee nga xam ne du sa morom te it gis nga ko li muy jàppee loo xam dañ naa la bët bala cee teg danañ ko multiplier nangami million yoon bët door ko mën a gis mu mu të àdduna tey ñëpp tiit ñëpp xëy jàq kilifa yi àdduna yi daan daje ñëpp jàq nañ kenn ñemeetu def dara loolu nag li muy delloo mooy yàlla rek mooy mooy mooy lépp moo man lépp moo yilif lépp moo sañ lépp kooku nag delloo ci suñu bopp ci tuub ak jéggul ak di ñaan nag ndax jullit nag ngànnaayam ba ci jiitu mooy ñaan ak nag fegu fegu fegu ci e, luy waral lool ndax yàlla mi tegee jàngoro moo wax ne na ngeen faju na faju waaye moo santaane moytu Seydina Omar ba muy dem Cham ba jub ba jege far ñu yégal ko lu mel nii am fa daa dëpp daa dëpp wax ne bañ ko waxee ne ko da ngay daw dogal mooy damay daw dogal jëm ci beneen dogal kon mu ngi doon fegu mu doon fegu fegu ko dañ koo santaane moytu bokk na ci fegu nag li ñu yor fànnu xam-xam ci lii muy kër docteur yi ñuy santaane nañ ko bàyyi xel bokk na ci set te lislaam muy ko njëkk sant bokk na ci di di di moytu di moytu laalante goo xam ne amut amut du aajo du aajo damay faral di wax ne euh, nuyoo lislaam la moom kenn du wax ne bu bu leen nuyoo waaye joxe loxo mën nañ ko bañ a def ndax bokk ci teggi ni nuyoo waaye du nuyoo kon bu bu ko bu ko bu ko bu ko waxtu laajee jot gi mayee ko te lor nekku ca mën na ko def waaye bu ko jot laajee mën nañ ko ba bu ko bu ci lor naaree juddoo ma nañ ko ba koro mo sama ne ko asalaamaaleykum loolu mooy cosaan loolu nag yëpp bokk na ci war a bàyyee xel yàlla na yàlla jëlee ko fii te tem tem tem doon loo xam ne dañ ciy jóge dellu ci suñu borom dellu wér goo xam duñ dëppaat boobaa yiw rek lay doon euh, inna ma'al usri yusran jooju suñu borom di wax euh, nañ ci nañ ko defaloo te am yaakaar te góorgóorlu maa ngi jéggalu di baalu àq ñëpp ñaan suñu borom boole ñu jéggal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu